la sexualité dañuy yaakaar ni xëy na laal ba rek la alors que astuce de femme style de vie la astuce de femme concept la lan mooy astuce de femme Safia jigéen boo xam ne su toogee ba mu neex du ko jël di ko teg ci n'importe quel bool day dem jënd ay vaisselle ay vaisselle ci astuce de femme la bokk ma leen koy xepetel jënd vaisselle yu rafet keroog maa ngi lay dégg ngay tàgg sa sa jabar yow prospère naan maa ngi remercier madame Dieye tey elle a si bien dressé et ainsi de suite loolu astuce de femme la boo xam ne euh, dafa dem yëkkati soit nga jox ko ko wala mu yëkkati xaalisam bu bari dem jënd vaisselam u luxe su toggee ba mu neex taaj ko ci pour mu am plaisir de manger lan aussi astuce de femme ci la bokk le fekk nga set tey ji yaakaar nañu astuce de femme mooy peut-être lal bi compétence machin mais jigéen bu set rek ci astuce de femme la bokk parce que set bi du da ngay jékki-jékki rek set da ngay sangu ba pare am ay affaire yooy def jigéen yaa ngi jënd ay huile ay musc di jënd ji ay ay ay lu nekk loo xam ne pour am benn odeur jigéen yaa ngi dem bay jënd ay parfum cheveux parfum yoo xam ne seen karaw lañ koy def c'est très rare waxuma amul nga gis jigéen buy tëdd jëkkëram guddi gi jékki-jékki rek foog def sërëm rek dem tëdd en général day defar néegam ba mu set bale ko ba mu baax parfumé ko ba mu xeeñ neex moom ci boppam mu sangu ba set lépp luy roq ak roqaat ci moom moom jigéen mu dem mu parfumé ko pour que su demee jege la même s'il y pas de rapport sexuel mu jege la cest à ngay xet-xet bu neex nga kottu ko kottu yooyu en général en vous vous enlacez ngeen di waxtaan loolu ci astuce de femme la bokk on va dire et ku jigéen kooku fan la jëlee cuuraay yeeg euh, euh, parfum yeeg yenn nuisette yu cher yeeg ainsi de suite da nga ciy gis jigéen boo xam ne benn guddi mën na ci dépenser cent mille francs pour pour pour bégal jëkkëram yow pour bégal jëkkëram non pour bégal jëkkëram parce que parce que su doon ñun ak ñun rek pour su doon ñun ak ñun rek mën nañoo sangu ba set parfumé wu dem tëdd mais ñun xanaa duñu solol suñu bopp nuisette xanaa duñu ko won suñu bopp xanaa ñun duñu dem di takkal suñu bopp ay voilà du coup ñun comme on fait toutes ces choses là foofu sax maa ngi ñëw wax nga ba sa calson baax sa jekk rek donc je donc je disais de femme la plupart du temps les gens pensent que ay produits yoo xam ne yu dangereux yooyu def sa partie intime wala yooyu utiliser pour am ay ay infection je pense que léegi l'information même est bien passée Euh, sama bopp moom moo ma gënal du bañ naa la benn jigéen sacrifié tul boppam ci li ma yaakaar di jënd lu koy lor parce que soo fi utiliser yenn yi am infection ku góor ki moo lay njëkk a bàyyi dem seet sa morom en attendant ngay wér donc astuce de femme du juste sexuel astuce de femme concept la astuce de femme toppatoo sa borom kër te jigéen moi je me soo nekkee sa biir kër dangaa war a fatt fépp comme on dit ba nga xam ne ku góor ki tey su wàccee day am envie toog ak yow c'est-à-dire temps bi nga bi mu lay consacré ngay neexal nan nga koy neexalee mën na doon mu ñëw nga jël tànkam par exemple un vendredi soir mu sonn nga jël tànkam xooj ci sa paan par exemple. d' accord commencé d' accord na. d' accord naa d' accord naa d' accord continué foofu mu nekk baax na maa ngi ñëw maa ngi ñëw dinañ dinañ juboo lan mooy astuce de femme vendredi soir. xoj ay tànkam teg fii attaaya ji bu dee benn murit nga tegal ko par exemple benn xasaayit wala bu dee rappeur nga tegal ko eh, soo par exemple di waxtaan ak moom di ko attaayaal loolu assise de femme la jënd na basin bi jënd na basin bi di la maasel say pied di la woqal sa dox ngay kontaan loolu ci assise de femme la bokk prospère ce qui fait que man on me dit que de femme bokkul ci luy solidifier mariage je me dis que kooku bëgg lu baax booku bëgg lu baax assise de femme tamit mooy lan le fait nga sa waxtaan mën a neex sa am na jigéen yoo xam ne soo toogee ak ñoom une heure de temps dafay mel ni une minute nga toog tellement dañoo agréable tellement dañ lay reetaan loo dañuy égayee kër gi mën nañoo toog plus de quinze personnes benn jigéen bi kese mooy yore waxtaan bi di bégal waa kër gi yëpp loolu du astuce de femme. am tey donc man su donc su man suñu manee astuce de femme bokkul ci luy bégal euh, mariage moi ma me dis que kooku bëggul lu baax. encore guddi jot. guddi jot. Mhm. tey jii nga sañ seet sol sa nuisette bu rafet euh, parfumé ba neex. yor sa benn huile de massage wala sa benn ay affaire manger sa jëkkër ba yaram bi par exemple dellu si waat. foofu it baax na loolu bokkul ci astuce dafa. Ah, de massage boobu daf koo jël foofu foofu nga wax a sëgg la charme ah, xaw la charme <laughs> loolu góor ma ni tey bëggul ah, loolu moi je me dis kii lan la bëgg. Hmm. donc astuce de femme effectivement. bokk na ci li nga xam ne dafay solidifier mariage. tout à fait parce que sa casse la routine. Hmm. ceebu jën sax soo koy lekk tous les jours. su yàggee ceebu jën sax soo koy lekk tous les jours. joŋee ah, a raison d'accord naa moom. et lan lay dindi sa casse la routine ceebu jën bi nga xam ne ñëpp dañ ko bëgg sax soo koy lekk tous les jours chaque euh, durant trois mois su ñu la tegalee ceeb bi dootu la neex jigéen parfois nga. fël ci infirmière par exemple bu subaa nga def sa nuisette ginnaaw suba ah oui xanaa kon da ngay tëdd mu kii waaw xanaa ñu ne perfusé di la defal ay ay mini gâteau yoo xam ni on va dire que c'est agréable ngeen def ba dugal ay yàlla ma doon ci dëkk parfois par exemple effectivement mënat bi bàyyi ma ci mënat bi bàyyi ma ci mënat bi bàyyi ma ci mënat bi ñu jiital ko bàyyi ma ci mënat bi noo yeggale may ma tuuti gis nga sa yoot gii bopp de baatu astuce nga ñu waroon di jógee rek ñu noppalu

xam nga li may wax nii. ay xeetu ay xam nga li may wax nii ay xeetu baax baax la yoo xam ne xam nga li may wax nii ay xeetu ay xeetu baax baax la. li may wax nii am na jigéen boo soloy caaya doo fanaan. moo wuti keroog baax si nga bëgg waaye dama ah nooy def. fili ba ngaa doon wan man. waaw wala nga sëpp ko. ay fa nga dem si ku bëgg caa nga fanaan fa. c'est tout c'est aussi simple que ça. quand même ku mbay bañ saa mbay na suuf. voilà bu bañ bu bañee caa yi rek. am ci ñoo xam ne caa yi borom caa yi la. nga dem fanaan fa. waay waay yow. moo xamoon caa xam mais mais mais mais Benoît. est-ce que xam nga. jigéen bugul caa yi nga xam nga xam nga accoutrement. ñu bari ñoo ci góor. accoutrement ci góor amul lu si gën caaya. waay waay waay caaya fan. si caaya bon yow. yow xamoo li si caaya. am na jigéen yoo xam ne ku fa yow xamoo li si jaay waaw am na foo am na koo xam ne moom mi ngi taxaw di xaar caaya moom borom caaya oui ak caaya bi moi je dis que j'ai rien contre caaya et tout oh, c'est euh, <laughs> traditionnel mais esthétiquement esthétiquement parlant on veut pas de caaya on veut plutôt ay caleçon yu baax ah, yoo xam ni en coton ngeen ah. jël ngeen def seen parfum wat seen baar bi ba nga xam ne su ngeen ñu ah, accolade duñu duñu ensemble caleçon sous-vêtement caleçon bu weex mais pourquoi caaya comme si pourquoi euh, euh, caaya prospère on veut pas caay désolé. donc par rapport à ça dañuy sol caay takk seen ay nombre de. caay la ñuy takk seen i nombre ngay wax ñu teg ci nombre di teg ci nombre di teg ci. mais attends mais attends il faut que ñoom ñu expliqué ñu caay pour nombre yi la nombre yi. xam nga man mii amee turu caay. waaw nombre yi uude yi kii noonu boobu xeeñ lañ lay teg di teg ci. waaw caay yi expliqué caay bi ngeen. caay bi ngeen caay bi ngeen programme. génn bokkul ak caay ji nga xam ne borom kër gi ko moom. waaw maanaam mën nga ci yor caay moo xam si bu ndaw lay doon léeg-léeg nga soog ko bëggal maanaam jaabate xam nga moom kii nee na léeg-léeg nga soog ci caay. jaay waaw jaay waaw kii nag mënta yor caay ji nga yor rek jaabate yor sa dalag bi mais mais Seck Seck Seck Seck jigéen jigéen ñi jigéen ñi duñ ma bàyyi jigéen ñi duñ ma bàyyi ma jigéen ñi duñ ma bàyyi lu ma xam mais Ousseyn Seck Seck yow caay ak satala na ñu jëm jàmm du ma bëgg maa ko soo ma defalee caay ak satala du ma bëgg ça non non non mais eh, ça dépend ça dépend des générations aussi mais Ousseyn mais génération bi ak satala mais Ousseyn mais Ouzin Ouzin. waaw ñaata yoon nga dem ci sabar. waaw. tamakat bi sol caaya. am nu mu élage. am nu mu def jigéen ñi di përee. waaw yow dara saw rek. non du caaya tëgg bee neex. non tëgg bee neex du caaya bi. désolé tëgg bi moo neex mais c'est pas le caaya. tëgg lu tëgg luñ ci yuuxu. ah tëgg bi raadu tëgg dañ koy fekk. waaye yuuxu moom leneen lu dul tëgg la. parce que loolu caaya ko mën. caaya waaw waaw mën naa wax tuuti. ñëwal caaya. bu lool boo jëlee. kër gu baax ku ne doon nañ fa jaay mbaa li nga def. même les urologues le conseil. même même. je te jure les urologues le conseil. pas tout le temps pas tout le temps. non mais non c'est vrai. mais on t'interdit formellement de sol ay caleçon yu serré. père nag moom euh, maa ngi jégalu xam nga man moom. Ah. comme tey sama samay pap laa toogal moo tax. xam boobu ba léegi mais am na ñu may envoyé message ne ma doo wax yow. jar na ci yow man euh, xaw ma lan laa war a wax. Ah. waaye caayeeg <laughs> satala moom. <laughs> ah si loolu gars yi sonatuñu caayeeg satala. bon calson bu weex tàll rek. mais ah. waay waay calson yi mille lay jar affaire bi xam nañ ko. mais dama ne la non ah, non yi lay joxe. waxuñu calson yi nga xam ne ndox mi mën a tere takk la jot lan ngay xool ba. eh man déjà déjà j'avais pas terminé. wax. déjà man de ku ma wutoon ma nopp yor sa yaay. pareegu ma déjà foofu dama fa bëgg a àggale su El Hadj pare El Hadj vas-y ngay reetaan El Hadj walatul. booy yëpp mën na leen. yow Seck li nga wax dafa yàgg trop. caa yeeg satal booy wala nag dañoo nangu booy yi. non caa yeeg satal fa la amati si kër waat. mais loolu tamit est-ce que duñu xoolaat ne loolu est-ce que moo ci li affaire biir ménage booy léegi dañoo nangu si taal. kon dinañ teg non non non mënoot bi c'est pas c'est pas quelque chose d'agressif. en général en général c'est des choses très très très douces yoo xam ne ay góor yu koy bëgg sax. ah mais am ñoo xamante ne loolu mooy. loolu mooy loolu mooy sadu mag ku nekk li ngay yow de li nga mel ni xam ne boo yoree moom koo wax wuti ko mu daw. ok yow yow yow yow. d'accord donc par rapport ak astuce de femme yi. Euh, loolu lépp di góor dafay bëgg euh, jabaram di ko ko defal ci biir kër mais c'est dommage que góor du débourser budget pour loolu parce que góor parce que tey jii ni muy jëndee ravitaillement am jënd ceeb diwlin machin pour waa kër gi lekk euh, jëndal xale yi noonu la war a yëkkati parfois su ko amee waxuma nag soo ko amul yëkkati benn som bu ndaw ne ko madame maa ko def ci astuce yi nga xam ne yaa ngi ma koy bëggale ci biir kër gi <laughs> à savoir à savoir vaisselle yu rafet yi nga xam ne su ma amee sama gan madame dressé ba mu rafet gan yi na ko ah sa soxna si lii fekk moom jëndee na service bi peut-être benn genre genre cent mille yow joxoo ko ko am na aussi guddi yi yenn huile de massage yi yenn cuuraay yi yenn vaisselle yi yenn yenn yenn yenn yoo xam ni pour yéen la du pour ñun parce que su doon ñun rek pour yéen pour bégal leen ah, yenn yenn yenn massage yeeg yenn nemm nemmal yeeg yenn ba ci ay plume yoo xam ne dañ leen koy raayale seen ay doom oui comme yéen bu njëkk ba da ngeen daan jënd donc da ngeen daan jënd ba am na ay dunk yu ne donc am na ay dunk yoo xam ne c'est très juróom-ñetti góor la ñuy rob ñaari jigéen mais bànneex la boo ëppee da ngeen ay borom. non la dee si bànneex moo gën dee si naqar papa. ah mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. yëpp ñu bëgg a femme sénégalaise. il faut se poser parce que la femme sénégalaise s'occupe très bien de son nga am que nga ñàkk Benoît. <laughs> bu ñu ko amee dañuy dof. non mais Benoît que nga am que nga ñàkk gis nga jigéen ak budget boo mën ci am da nga ciy gis ku am benn sagaru 1000 francs ah. dem jënd benn goowe bu cent franc ci mhm. marché bi mhm. dem jënd dem jënd benn affaire juste pour bégal borom këram jigéen lu mu am ci borom këram lay dem pourquoi yéen du ngeen du ngeen du ngeen ñuy dimbali des fois di ñu jox li ñu leen di bégalee parce que des fois c'est difficile dañuy bokk ay natt yoo xam ne suñ ko teggee suñ ko teggee xam nga lu ñuy dem jënd ji ay ay ay ay vaisselle mhm. ay décoration par exemple kii jënd rideau xool par exemple table bi xaaral ma dem jënd mais vous les hommes yaakaar ngeen ni ceeb diwlin euh, ravitaillement bi complet jeex na alors que y a énormément de choses yoo xam ne war ngeen ñu ci mën a jàppale parce que pour yéen la te suñ ko deful ngeen xas ñu naan non sama jabar jongewul xaaral ma génn ma dem doxaan sama jabar deful lii est-ce que sa jabar lii tax muy jonge parfois du ko am bu dee am na ko amul problème benn euh, ajaa boo xam ne mi ngi fayee ko benn salaire boo xam ne yëkkati peut-être benn vingt mille francs dépensé ko ci yow du dara ci moom mais am na koo xam ne amul lu mu añee te bëf bëgg na la bëggal yow mi yaa xayti soo amee de temps en temps may ko ne ko soxna si maa la may 10 000 francs yi maa ko yokk tu crois que ça ne se passe pas comme ça non non non ça se moi par exemple maa ngi liggéey maa ngi liggéey ci comment tu may man ça fait presque 6 ans que maa ngi nekk ci milieu astuce de femme su su ma jëlee 100 personnes on va dire que 90 pour cent yëpp femmes yi ñooy ñëw jënd euh, góor yi ñëw jënd mais 90 yooyu yëpp damay waxtaan ak ñoom parce que je fais du coaching en même temps elle me parle d'elle dañ ma naan Maya lii may jënd nii maa ngi koy jënd juste parce que je fais mon devoir mais dafa métti ci man financièrement sama góor du ma ko jox limite su ba apprécier. ci yow la ñuy dóor nga wàññi li ngay jaay. non non non nga wàññi nga ne ah kii de dëgg yàlla li ci kii bii xaaral pompe pompe au lieu de 6 000 francs xaaral ma defal ko 2500. ñuy dóor yow di ndox sama ñëw nga bëgg a catégoriser góor ñi xaaral on se calme waaye on se calme nu ñuy calme te ñu sosal nu ñu sosal ñu ñu calme calme wu ñu de toog noonu di ñu sosal noonu nga ñu calme moo la gën a xam li muy wax kañ ngay bàyyi ma tontu parce que tu crois que góor ñi duñ def loolu xam nga lan moo tax ma ni dóoruñu ma man mayaa ku ma xam-xam ni wàññiw ma ah, lu may jaay dix mille neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf jaayu ma la parce que ci loolu laay liggéey sama gagne-pain la tey jii coaching boobu may def par exemple dañ may fay pour que je le fasse pour dire que ces genres de femme elles sont très sincères entre femme book de ma part amul ay nëbb amul ay rus man mayewu ma man aalewu ma man wàññiwu ma damay jaay par exemple dañ may wax li leen metti dans le but que man ma defal leen pas ma wutal leen solution man la oh ono yàlla baax na euh, wala demal sa jëkkër par exemple nga def benn genre speech bi nga ne ko chéri kat lii ak li bëgg naa jënd lii am na ay jigéen yoo xam ne dañuy bokk natt ci man pour am ay astuce de femme parce que lu ñu jëndee teew amuñu non mais c'est des choses ay 5000 10 000. fa lay jëlee lu ñu natte yéen joxewu leen ko. comment tu sais yéen joxewu leen ko. comment tu sais foofu la ñu d'accord ak yow. suñu leen ko laajee am na lu ngeen di wax. waaw parce que talu ma ko. mais comment tu sais yow comment tu sais. fu ñu koy jëlee. comment tu sais. fu ñu koy jëlee seen liggéey. comment tu sais. seen liggéey. dëbb dëbb la ci loolu. mais seen liggéey. seen càmmiñ may leen lii ñu def lii. bu amoon budget bi chaque fin du mois. du bokk natt as. effectivement amoon chaque fin du mois. assis laa wax décoration kër yi dama dama ciy dugg. am na ñoo xam ne suñu jëndee fauteuil Safia am na ñoo xam ne suñu jëndee fauteuil même ci décoration kër yi suñu jëndee fa tey jënd lal jënd armoire yaakaar nañ ne kër gi décoré nañ ko ba pare jigéen ñee fi nekk di sol jigéen ñee fi nekk di jënd di jënd par exemple mooy yu ndaw yi ngay teg ci kaw table bi c'est très cher jigéen yee koy jënd jigéen ñi ñooy nekk di jënd ba ci tableau yéen sa à dire yéen général ngeen xam xamu leen particulier te particulier en général moo gën a cher détail moo gën a cher ngeen bàyyi ci xel de temps en temps nga bett sa soxna mej ko ak benn cent mille francs par exemple ne ko maa ko def ci jonge bi mhm. kooku mën a jël cent mille yi yokk ci yeneen trois cent mille dem bégal la ko parce que en fait il faut participer par rapport au truc de jonge ma yaa xamal li ngay dund te bañ a xam lu ne ci kër keneen non man xam naa je suis désolé je suis désolé je suis désolé ma ne la tu ne peux pas entendre une version xam nga lu ma d'accord ak yow tu ne peux pas tu ne peux pas entendre une version et être formel elle n'a pas dit une version elle n'a pas dit une version elle a dit sur cent femmes boo jëlee les quatre

ngay coaché. booy coaché coaché wul lu muy coaché. coaché wul te ñi muy coaché sax wàññi sax mënu ko si ñoom wàññi. comme elle a si bien dit wàññi sax mënu ko si ñoom. coaché wul kenn coaché wul kenn wàññi sax mënu ko si ñoom wàññi. wàññi te ku ne xam na ne wàññi taxul a perte. prospère bëgg a wax ndik wax. ñi day coaché ay jigéen. coaché wul kenn jaay li muy jaay lay coaché coaché wul kenn. Ah. coaché wul kenn la coaché wul. yow ay jigéen